ma chérie. oui. ma chérie eh, envoyé naa la vidéo bi parce que commentaire yi dañ ni ay commentaire bi septembre ma wut ma ban mois lan ma a euh, ko fenloo da a fenloo mag rek. si boppam dañoo mën a a. yaa leen gën a waaw kay. mi dëgg la barke rasuure laay nag attends waaye moom vue unique la ma ko defal yow vue unique nga ma ko defal mënu ma ko won askan bi mënu ma ko wone envoyé waat ma ko ma won leen ko envoyé waat ma ko ma won leen ko dëgg la dëgg la da ngeen mën a dulloo mag rek kii moom dëgg la wax ngir yàlla envoyé waat ma ko ma chérie envoyé waat ma ko envoyé waat ma ko ma ma wan leen ko dañoo mën a fenloo mag rek kii de li mu wax moom dëgg la <laughs> waaw waaw mbarki rasuri laay kii de moom bi mu wax de dëgg la dangeen mën a loo mag rek très bien xanaa rus ngeen ñi ko doon bind noonu xanaa gàcce rey na leen waaye yéen gàcce du leen rey di ndax yéen moom gàcce da ngeen koo ruy naan ko yéen moom gàcce moom du leen rey ñun sénégalais e gàcce du ñu rey dañuy rus di di jugaat di def lu gën a piir ñun moom gàcce duñu rey miin nañ ko di allo. Hmm? oui. ban photo. borom laq bi. borom laq bi day fen yow xoolal. gis nga yi gis nga xa euh, ngi noonu. ah nëbb tiktok am. Kana fen gen legi? Ou yu? Ou yu? Ou yu? Kha yis ba yi nono? Kha yis ba yi nono? Kana do fen gen? Waw waw! <laughs> Bi mom iPhone 16 la. Na kouleur bi 16 la. Kouleur bi mom 16 la. Tedeye byen. Li 16 la. Bay fen li 16 la. iPhone 16 la. Man misa amna kouleur bo men ni. Me iPhone 16 bo ko gisey ham ko. Atan. mën a e fen yéen kii da da daa da daa yéeg am jotu yéeg tiiñal leen très bien ñaw même mu muy 15 ak 16 moo ci bokk yam en tout cas may nañ ko iPhone may ko xaalis yéen lu ngeen am dara maa ngi yéen a yam allo <laughs> lu mu ci mën a doon même bu doonee 13 sax may nañ ko iPhone iPhone ñett yi moom ñett yi la am moom ñett yi ñett yii nii moom am na ko yéen ana seen boss ana seen bos foo gis kuy critiquer rek du wane ana seen bos yéen ñi nga xam ne da ngeen di wax di di fenloo nit ana seen bos moom moom am na ñett moom bu ci mën doon rek pro max la iPhone pro max lañ ko may muy 15 di 16 pro max daal la am yéen ana bos man moom sama 13 a ngi nii sama quinze a ngi nii aw ma 16 waaye sama quinze a ngi nii sama 13 a ngi yéen an seen bos mën a fenloo rek très bien kii moom kontaan naa ci moom ñëw.

waa dindi sa écouteur yi nga wax ci téléphone maa ngi dégg sama voix bi di répété nga ne defoo haut parleur tamit. yaa may dégg yaa may dégg ñëwal. waaw ñëwal. xam nga 17 mm-hmm. di kii di moom waaw. Ah. Ah, mon Dieu allo allo. Allô, oui, ma série. Oui, ça va? Oui, ça va, ma belle sœur, Ça va, alhamdulillah. Ça va, alhamdulillah. man de dama la bëggoon a wax si sama histoire tuuti. waaw. pour partager ko ak yow. vas-y. sama jëkkër bi si laa lay wax. waaw moom maanaam dafa soxor. dafa soxor. waaw dafa bon depuis ma nekkee woon xale nag moom lañ ma ko mayoon. waaw. waaye moom daal dafa bon ay dóor ay lu nekk daal dafa ma koy def loo xalaat rek su loo xamante ni nii su lu bon la te man mënumaa divorcé ndax sama papa ak sama lool bi mooy deux fois dem naa sa kër ba après ñoom ñu indi ma waat. Mm-hmm. waaw waaye daf may nekk di ma dóor daf may nekk di ma kii dama doon seetaan léegi sa live gis. Mm-hmm. xale bu jigéen bi di wax cicatrice léegi na loolu moo nekk rek sama xel mi yar rek ma ne xaaral ma dugg rek woo la. Mm-hmm. Ah, ban conseil nga ma siy jox parce que man mënumaa dem fenn loolu moo tax ndax sama doom yi. Hmm. léegi loolu waaye lu nekk rek lu ne lu ne dañ ma koy def mu mu yaayam ak ay rakkam yu nekk ci biir kër lu bon lu nekk dañ ma koy def ma ko. ba léegi mu ngi lay mu lay dóor. ba léegi nii kay ba léegi nii am na jour boo xam li ma si gën a marqué am na jour boo xamante ne nii maanaam dañoo demoon ci kii bi centième maanaam ci këram bi ñu doon tabax bugguma di wax tur ak yooyu noonu. sax hmm. maanaam. non bul joxe détail yëpp. Hmm. waa léegi nag bi ñu demee foofu noonu moom na moom maanaam maçon yeeg yépp ñu di foofu noonu. taxaw mm, mm. dina ñu ànd foofu mënuma naa ko gunge léegi nag ñu lii maanaam feer yi ak yooyu doole feer yi feer yi maanaam kër boo koy tabax feer yi yooyu doole. waaw léegi nag mi ngi foofu noonu rek mënuma lu tax indaale woo kii bi nu mu tudd saxati maanaam xam nga booy defar nii kër kii livre yi xaw ma yii xam nga jànguma nag kii nu mu tudd sax kay yooyu noonu ngay yore. plan yi plan yi. waaw kay mi ngi noonu nag. man dama koo fàtte dana ma dugal ko si maalo oto bi léegi man ma fàtte ko. waaw. léegi may wax mu pare daal rek nga gis mu xoolal mu bëmax ma léegi nag bi ma bëmaxee feer bi dugg sama tànk bi fii nii man moom boo bëggee léegi nii mën feer bi dugg sama tànk bi. Mm, attends moom moom li nga fàtte plan yi rek ca kër ga. waaw mu bëmax la ci noonu ba bëgg la cee ba. mi ngi nii fotol fotol naa la ko mi ngi noonu gis nga. mi ngi noonu mu ba ma si bi mu ma ba maxee nag si laa daanoo sama jiir bi bëtt léegi gis nga xoolal feer bi dugg sama tànk moo nekk noonu. bi bii la diwlin bu tàng ma fekkoon si waañ bi mu ne ma ma ne ko ceebu jën moom laay togg ndax ndugg bi dafa manqué si kër bi te bi wala ka jox ma ko mu jël kuddu mbattu. waaw mbattu takk si diwlin bi sotti ko sama tànk bi moo nekk bi bokk moo nekk bi. non non boobu noonee feer bi la bii bi ma ba ma xëyee ba ma dal si feer bi la bii moom moo ne mbàtt bu tàng bi la tàngal diw sotti ko si sama tànk bi jour bi may toogu ceebu jën wooy moo nekk noonu nekk lu méttee métti ak sama yaram bi ay cicatrices yoo xamante ne nii sama digg ginnaaw bi ay fiil ak yu yu bëree bëri mu lay fiile billaahi daf mooy jël des fois daf may takk wala mu perte ma may su semua ko defee dara wala lii mu takk ma may nelaw mu jàpp sama loxoy takk ko ba mu dëgër wala am na sax monote des fois am na jour boo xamante ni moom mais boo dëgg yàlla benn yoon la ma ko mas a def daf maa jàpp monote ma sama diggee gi ndaw wi ay rakkam ay léppam ñu ngi si biir kër gi waaye ñoom duñ ci wax dara kii naan may bési won ñu lii du ma ko waneel yow lii lii yow kii daf ko rey ba mu dee kii def ay cicatrice rek la ko la ko may cicatrice yu bon nag rek la ko bàyyi mi ngi parce que man def yow ma chérie bu dee lii yow yow fii fiile ma chérie nit jàpp la takk la di la fiile pourquoi pourquoi ngay nangu yëfu jaam yi si ay guddi si ay guddi mu jàpp ma dóor maa dóor dóor mën a tema jour boobu mais bi ma la photo bi ma la moo ma gën a marqué maçon yeeg ñëpp ñëpp taxaw mu jël ma bu ma bëma xëy rek nga gis feer bi xam nga dafa lii boo ko daggee noonu ba pare xam nga day ñaw day ñaw ma lii rek wala sama tubéy bi bënn rek nga gis mu dugg si biir kay wóor na yàlla hôpital toog na deux jours toog na deux jours sama tànk bi di métti mu dem ba néew ba nga xam ne ëpp na doole bi mooy su ko nga yóbbu hôpital woon su ma demee hôpital damay jël istri problème bi mu demee subhanallah waaye yow da ngay bu la buuxoon xam nga sa tànk bi moo dal imaginer sa bopp bi daloon ci kii bi loolu ndax ku ku buux nit moom bul xam fu nit ki di fu nit ki di eh, ndogam li di tegu munoon na la buux sa bop au lieu mu don sa tank sa bop yow yalla la sutura wow yow yow ma chérie sa borom sa sa wa keur lan motax sa yow demé ñu dellu ci la c'est parce que waa dafa am xaliss wa hmm, li la mëna don ta xam nga yeen yeen jigéen ni li la leen don wax kérok man ko am kum ko wax ma ko wax deug yalla ni ngeen de def sen famille ñuy jëriñoo sen xaliss borom keur te yeen di ngeen jëriñoo xaalis bi de waaye dinañ leen ci dóor ba ngeen damm dinañ leen pattal dinañ leen dinañ leen làggil yéen di lu ne de façon cicatrice bu dul cicatrice su dëmm ak jinne dinañ leen ko def si seen yaram yi ngeen toog rek di sëy seen waa kër ñoom kenn dóoru leen kenn saagaw leen kenn defu leen dara waaye ñoom ñooy lekk xaalis bi ñoom ñoom bànneex bi ñoo koy am yow yow moom naqar gi yaa koy am pourquoi. dunduma de ma lu neex de dunduma ko de wax dëgg yàlla depuis ma amee 17 ans laa nekkoon ci moom yàlla dunduma ko moom ma chérie ma chérie wax dëgg yàlla kañ ngay ibbi sa bët bii nga génn ci sëy bii balaa ñu lay rey te buñ la reyee du ma ne seen waa kër ay perte de yow yaay perte seen waa kër moom dañuy continuer seen vie dañ lay dëjal te jouru dëj bi bu waa ji ñëwee du ñu xool ne waajee la rey de waaju bu ñëwee andi ay nagam andi ay xaram andi xaalisam bu fees deel xaalisam bu bëri seen waa kër roi lay doon foofu de roi lay doon parce que seen waa kër dañoo bëgg xaalis ñoom bëgguñu la yow xaalis lañ bëgg yow moom seen waa bëgguñu la sa yaay bëggu la sa papa dafa irresponsable parce que mënuma comprendre man papa joo xam ne day gis doomam man yaay sax mun na yaay yi mun nañ bëgg xaalis ñu ne waaw yaay jii dafa bëgg xaalis waaye irresponsabilité munul weesu sa papa gis li ngay dund gis li ngay dund teg ci bëtam nga koy wax muy dégg mu koy gis nga ñëw boole ñaari yoon ñaari yoon nga ñëw toog ñu dellawaat la sa kër jëkkër xanaa loolu mooy demal nga demal ñu rey la boo dee ñu noppalu xanaa yow da ngaa xatal seen waa kër. am na boo xamante ne nii damaa ëmb boobu noonu sama première ëmb boo xamante ne nii ndékki maanaam cuir maanaam moom boo ko tegalee ndékki te te cuir bi dafa jeex de te waxoon naa ko si guddi bi boo ko tegalee ndékki te tegaloo ko ko day mel maanaam mën na la see sax rey hmm. ma jël cuir bi maanaam daal teguma ko si dafa jeex mu gis nga bi ma ba ma xëyee boobu nag moom damaa ëmboon te waxuma ko ko gis nga bi ma ba ma xëyee ma dugg si biir bi bi ma duggee si salle de sama biir bi di metti nga gis sama tii di sotteeku laa la wax wóor na yàlla. sa ëmb bi tuur bu tuuroo kay dangay perte direct. billaay. non mais sérieusement ma chérie yow xanaa dangaa bëgg yow dangay xaru dafa mel ni non non xaru de. ñaata doom nga am ma chérie papa ñëw delloo si ma. ñaata doom nga am. ah am naa ñett. yow de bu dee dangaa bëgg keneen jëriñoo say keneen yar say doom keneen jëriñoo say ah, nañ koy waxat sa doom bu ñu demee ba tekki bu dee da nga bëgg a anticiper sa dee moom ay ca yaa ngi noonu waajaa ngi noonu ndax dèjà waaju lay takk ma chérie man takk yi takk giñ lay takk noonu di la dóor mel ni xale xale bu ñu jàpp dóor yow sa papa dóoru la sa yaay dóoru la sa yat damm na xaw ma ban 1900 la. nit ki sa jëkkër jàpp la takk la comme xale comme doomam takk la doom yow sa doom sax boo koy dóor xanaa doo ko takk di ko bàyyi mu xaw a waaw xaw a bërëngu foofu di di mel ni kuy daanu leer waaye yow magum jëmm fekk la ngay nelaw ñu takk la ba nga ne nodd ba mel ni nag bu ñuy waaj rey wala xar bu ñuy waaj a rey doo mën a bouger ñu jàpp la fiile la ba nga normal fii fiil ni mu safee. am na jour boo xamante ne dafa dem voyage voyage la dem ñëw yaayam ne ko. manam toguma dal lo xamanteni ni dal manam ci si kër gi loo nit mën lek lekk ma neex la doon def numa ma di jour bobu non wa non jour bobu non ñaar yoon doon ci guddi bi doon na ma ak ci bi mu yegsiwee noonu ñaari yoon tax man may jël di def loolu noné yaayam yaayam top di ma taxasi ak mom suñ su may do dañ koy dégg te duñ ñew atté wala dar damay wo sama fami nak jël di leen ko wax sama papa moom mu ni bu mo ñew te du xam parce que ma ngi sama ñetti doom ñu noonu te mu nee na bu ma demee du ko yóbbaale samay doom loolu la ma wax. moo wax boo demee sa papa moo ne boo ñëwee àndaale say doom. oh sama jëkkër bi moom moo may dem du ma yóbbaale samay doom. waaw parce que xam nañ ne ñoom di góor ñi xam nañ ne foofu lañ ñu mën a coincé xam nañ ne buñ ñu nee xale yi du ñu dem yaay ji day gën a mën a am courage yu toog ndax da naan du dem bàyyi samay doom góor ñi foofu lañ ñuy coincé xam nañ ne yaay bu ne bëggul dem bàyyi doom sa ginnaaw waaye xanaa man danga may rey de waaye gone yi bu may dem ñu may topp. door boogu ci boppam moo war a arrêté ma chérie sëy bi sax boo ci génnee day yomb ma ne la dóor yi moo war a arrêté ana porter plainte ana dem gisu ji police ah. dangay toog ci biir kër gi nga sëy ma chérie mais toog gi ngay toog ci biir kër gi di sëy danga koy wan ne fulla gu mat sëkk nga am te dóor yi dafa war a dakk par A ou par B yow boo demee sa kër famille sa kër famille bëgguñu la ndax ñoom ñoo la jalax loolooy demal nga deewi ji sa famille moom lii lañ la wax sa famille moom bëgguñu la tey bëgguñu la ëllëg loolu foo tëdd dee ko njegenaayoo ndax famille bu la bëgg da lay da boo boo demee di buñ la mbéjee sax nga ñëw mu dem lijjanti sa jëkkër naan ko boo ko mbéjatee di nga xam ne lépp dëgg la mbéj laa la wax ne waxuma laaj nag ñu lay takk di la fiile di la laq ana yow diwlin diwlin kii photo yi ma yëpp maara day lii bu ma leen ko wanee yéen ñëpp ay nekk fi di jooy kii yaramam bi yëpp la jëkkër ji de laq fépp ay ay jam puso ay jam euh, lii weñ ay ay ay lakk du louche nga jël ko tank ci diwlin ba ba diwlin bi ne la diwlin bu tang nga sotti ko ci tank ki nim ko sodé ni li buma len ko wanee yeen ñep da ngeen di paré ci aduna ay photo yu doy wa pour lan japp le fii la la sa yaram bi fepp dagato non ma chérie man kay wan yi moom doy na ñaari photo yi ma wan ni rek buma ko won ci live bi tay fi live bi day wacc mais franchement lii pour lan ma chérie munoo dem porter kii plainte mu may la sa jàmm may la sa salaam bu bu bu ci jaaree ne la fase naa la mu doon ndokku mu doon ndokku ma chérie nam mu ca yabu ca mais lii dafa war a arrêté benn jour mu jàpp lu dóor la imaginer dóor la ba xoj la wala moom mu dóor la fu mu la warul la dóor sa bët bi tuuru wala sa loxo bi damm yow loolu foo koy waxi jee foo koy waxi jee fekk nga naan boobu nag ngay doogay porter ji plainte fekk c'est trop wala bis boo dee ba dee kuy porté ji plainte sa famille ji nga xam ne dañoo bëgg xaalis sa famille ju bëgg xaalis gi bis boo dee mbaa du ci ñoom nga compté pour ñu porté plainte ñii de duñu mës a porté plainte sa jëkkër ji boo dee fa la ñuy gën a jàppee sa jëkkër ji ndax dañ naan ka ñu ko taxoon ñu doon ñu jox xaalis dem na kon nag foog ñu gën a jege jëkkër pour ñu jox ñu yow da ngay xaar dee ma chérie sa vie comme gën a sa sa vie famille moo la gën a sa propre vie yow ah defal ma say doom ñooy perte rek de yow yaay perte ak say doom sa jëkkër du perte ndax bis boo dee mu dem takk ji keneen nekk di yaataa yumbe du sax lijjante ne amoon na jabar bu tudd Faatu wala Penda wala euh, je sais pas Binta ah nga porte kii plainte laa la wax parce que yii bis bu bis bu la dóoratee enregistré dóor yi yépp li mu la saagaat li mu la wax ci yépp enregistré ko nga yóbbu ko police policiers yi menacé ko def ko lu dara jarul bu ñëwaatee ci kër gi moom bu gisatee jigéen bu ñuy dóor foofu yépp du fa taxawaalu lii pour lan la genre doomaraam yi rek laa bañ jàpp jigéen di dóor yow demoo xeex jeeg sa moromu góor ñi de ñu téegal sa ndey ba nga xam ne lépp dëgg la yow yow jigéen ñi nga ngay jàpp di dóor demal ci sa moromu góor ji demal ci sa moromu góor ñi nga xool nan lañ lay doxalee dinañ la dóor ba takk la ba dóor la ba la ba def la taatu ne yow moom jigéen ñi nga mën comme ñoom ngay ñoom ngay attaqué pour lan la ma chérie yéen jigéen ñi lan la sëy dafa jar lii sëy jar na ñu jàppale yow buñ la soodee sa jëkkër bu max la tiilale nga waroon yow sa sa biir bi bu daloon nga dee sa ndigg li sa kolon vertébrale bi bu daloon ci weñ bi nga paralysé à sa bopp bi bu daloon boo deewul da ngay am traumatisme crânien à vie nga sa bopp bi mujj see tourné war a war a nga nga nga doon légume nag dootoo bougé ti ma chérie pour lan sëy jaral la ko say waata sauvé la nga sauvé sa bopp lan la mais boo ma fasee fase ma da day doon mu ca yebu ca laa bu ma demoo amul fu ma dem sa tëdd ci mbedd bee ma gën a lii ñu may takk di ma dóor mel ni xale bu ndaw bis bu ma dee man kan mooy perte sa ñetti doom bul fàtte ne ñetti doom nga am ma chérie sa ñetti doom yooyu fu ñu jëm say waa kër ju baadoola ji nga foog ne ñoo lay téel say doom ñoom bëgguñu la téye duñu la téel say doom ndax danga leen a xatal jour ba nga génnee kër gi jour boobu lañ la diril cin balal la say tànk ne la demal foo xam jëmal moo tax kii di la toroxal ñu nga dellu si si biir kër gi parce que kii moo yor seen teraanga ñoom ñu la nga ne doo bëgg sa bopp yow ah yow ma chérie nag jugal si li nga ne waay ah n'importe quoi allo. allo. oui. my bestie. Ça va Vous allez bien Ça va, ma chérie. Tu peux me tutoyer, ma chérie. Ah, ok. Mm-hmm. Donc, ouais, vas-y, nous, on tutoie ici. Ça va, bien Je euh, ma àkk de juste euh, par rapport à bu papa ça, une minute s'il vous plaît mm-hmm. s'il te plaît parce que nous, bari dañuy surtout sénégalais parce que ñu bëri dañuy naan seen doom yu jigéen ñu gën a mën a surveiller que seen doom yu góor. Mm-hmm. te je vous dis que je te dis xale yu góor yu bëri ay xale yu ndaw boo bu ñu xamee jigéen si kër gi ni nga ko xamee soit seen tante la wala seen euh, maam wala bonne bi wala seen cousine bu leen mag. parce que ma damay waxtaan na ay góor boo xoolee bu ñu am xamee jigéen de côté boobu la parce que dañ leen doon sàkku. Hmm. wala ñu leen doon forcer seen yenn tante yi wala dara baa ma si gàtt. Hmm. kàddu bi hmm. non fii waxal ma fii kay amul lu ñuy euh, baalaate wax ay nuuru buuti ak yooyu. góor ñu bëri koo gisee góor yu ko gën a bëgg. Euh, mooy genre yoo xamante ne ñoom dina doon forcé bu ñu def yooyu noonu mm-hmm. te boo xoolee ñooñu affaire yi nu mu gën a xeeñ xeeñee nu mu gën a xeeñee ndeta du bëgg nañu mm-hmm. parce que tellement que day nekk ñoom lu ñu tàmm lu ñu bëgg mm-hmm. xaw ma na comprendre nga fi may si si maa ngi comprendre ni non tout le temps jigéen ñi la ñu war a surveiller mais góor ñi tamit dëgg la war a surveiller ñu si bëri boo la laajee fu ñu xamee jigéen génnul seen biir kër dëgg la seen naa bu leen mag wala

wax na dëgg man damaa wax ba sonn jigéen ñi dee leen surveiller nee naa la sa propre jëkkër sax dee ko surveiller même boo juree doom bu góor sa propre jëkkër bàyyil xel ci moom ak sa doom bu góor sa propre jëkkër bàyyil xel ci moom même bu dee moo jur xale bi bàyyil xel ci moom papa yaa ngi sàkku seen doom yu góor yi nijaay yaa ngi sàkku seen jarbaat yu góor yi yow tamit jigéen ñi am nañu nage de jigéen ñi ñoo nage am na ñu nage surveillance moom njo ñoom ñoom njaaxaanaay rek nage rek nagee rek lo leen waxul xamuñu ko amuñu seetlu oui allô oui ma chérie ça va chérie ça va yéen ça va alhamdulilah alhamdulilah tu es très belle sa greffage baax la merci c'est gentil ma chérie ñu ngi lay encouragé si li ngay def bu baax en fait damay woote pour juste dëggal li nga xamante euh ñi ñuy do sen foyer yi ñu ngi koy dund mm-hmm. man par exemple jëkkër bi ma doon sëy c'était la même chose. suñu sama yi faale wu ma kenn faale wu ma mu ne door benn jour daal lañ dem weekend suñu sama kër papa. Mhm. ñuy seetaan concert Carlou D c'était mooy concert yi mu doon def ay vingt huit décembre. Mhm. ñuy seetaan concert Carlou ma toog sama chambre bi ma jox foofu. Mhm. ma toog foofu di seetaan mu ñëw na ma waaw. yi nangam taan yi ngay seetaan xaw ma lan xoolal daal di changé tel ba ma jóge ca sama néeg dem toog ca saal bi. di seetaan jàpp ñu ñëw daal di fekk ba ci saal bi daal di toog. waaw jour boobu laa fippu jour boobu laa fippu mu ne naa changé télé bi xolo commencé ñu ne ko changé wu ma da ngay toog ci salle bi nga seetaan wala man ma toog fii wala man ma dem ci chambre bi yow nga toog fii. Mhm. rek mu attaqué ma. fekk da laa bëggoon provoqué bëggoon na laa jot waaw. Mhm. dafa doon provoqué. Mhm. heure bu ma jotee suñu waa kër duñ ma sa atte mës na songu ma fii xeer sama yaay mu ngi toog fii sama wujj yaay toog ñëpp toog mu songu ma xeex traité ma lu tuule ma wax ma lu ko neex. xanaa yow yow moom moom moo sëy si woon seen kër yow. non non non non non ba may doog a takk amul woon dara suñu kër la woon ñu héberger ko. waaw moom laa wax loolu ba muy xew seen kër la woon yow. voilà léegi nag loolu ba muy xew boobu <laughs> fekk na moom am na ba ñu dem mais dañoo jékki-jékki par weekend wala ay fête ñu dem kër ga. waa yaa ngi dégg jour boobu nag daa fekk na sam papa nekk fi mu ne ma xoolal rek mu attaqué ma gis nga bi ma attaqué gis nga ron photo yi fa la ko très bien. ma ko nokku nokku yoo xamante ne jour boobu. <laughs> ku ko ku ko doon ñuus noonu sa papa. man maa ko doon ñuus sa papa <laughs> nokku le filmateur moom lañ faral man maa ko. Ah, yaa ko ñuus ba ma dugg ci rôle photo bi. <laughs> non jour boobu laa fippu laa la wax. daf may dóor rek ma baare ko rek itti nga am. waaw moytul ma jigéen bu fippu barki rasulilah mun nañ laa rey te duñ ko tey waaw. ma naka nga xoolal tay jii lay mujj sa loxo di ma laal banaa ko sax. très bien jëkkër man jëkkër bu ko gën a nekk xale gën kaa coow. très bien yàlla ñàkk ko. mu jaay gis nga xale yu góor yi ñoo leen bàyyi gis nga. na yàlla jigéen boo ragalee rek ñu ray la. loolu la booy ragal ñu lay ray. loolu la dañ lay bàyyi. say parents dañ lay bàyyi boo hmm. ragal hmm. man moom jaral na ma fanaan ci mbedd mi. ci barki salaatul fatiha barki rasulilaay. nga may wulli man dama hmm. mbaamu kenn. billaay. loolu daal laa ne naa ko partage jigéen ñi. très bien liggéey surtout liggéey. amal sa bopp. Eh, eh. c'est important day tax góor du la takk buum de di la diri. liggéey bi c'est important wax na dëgg de góor bu lay dóor di la dóor benn yoon la lay dóor gis nga dóor boobu mu la dóor bul bàyyi mu continuer. bul bàyyi mu continuer góor bu la mbejee sax bul bàyyi mbéj bi continuer ndax góor bu la saagaa. nga bàyyi saaga bi mu jàll bu suba dalay pes bu la pesee pes boobu nga ne garaawul pes xam nga pes dafa métti surtout pes bu ñu la bettee jékki-jékki rek pes la pes boobu moo gën a métti kaa ñu métti boo paree nga bàyyi pes bi jàll ndax nga ne dangay ngay sëy rek bu beneen yoon bu la xëtee sa dënn bi rëcc ñu moccal la ba dënn bi delluwaat bu subaa dana la dóor ba nga toog ci chaise roulante yow dootoo demati fenn te bis bu la reyee moom dootoo ko defati fooy wax ji fooy porter ji plainte da ngeen a nagee rek continuer leen góor ñi di leen wulli rek def leen seen seen seen seen seen tama fu ñu toll rek di leen rang-rangee def leen seen ndënd ndënd moom xam nga foofu la neexee xëcc rek ndulli ba mu neex dem teg ñoom yéen seen ndënd góor ñi ngeen ay ca rek doole góor rek di la di la are are yu normal di la fiile ba nga normal comme seen yaram yi daa dëj na neex alo allo ma bestie. oui ça va yaa ngi si jàmm. alhamdulilah. en fait man dama am ben question mo doon bëgg laaj. Mhm. Euh, dama am copain depuis ça fait 8 mois. Mhm. ñooñu génn. Mhm. mais Angleterre la nekk. dañuy wax si lépp dañuy wax appel vidéo guddi yi tout le temps. des fois mu envoyé ma xam nga de euh, xam nga ma ko mën waxee. ay photo laalante wala je sais pas. non daf may envoyé sexe am yooyu noonu quoi. ma da lay envoyé awraam waaw. waaw. Mhm. daf ma koy flam léegi. ok man du ma ko envoyé sama bu samay wen rek laay vidéo bi fee nii envoyé ko. sa jëkkër la ah. sama copain la. ok. Mhm. mais nii daf may sonal si ma envoyé ko sama sama kii bi quoi sama bëtu gaynde bi tout le temps dama doon laaj ba xam c'est normal ma envoyé ko parce que moom mi may envoyé wala mooy loolu quoi. non non non comme ça du sa jëkkër ma chérie. ween yooyu nga koy envoyé sa arrêté ko. Ah. Mhm. d'accord. góor ñi bu doon sa jëkkër la sax danaa la ne bon c'est pas grave sa jëkkër la nëbbal sa kanam nga photo sa awra nga envoyé ko ko c'est pas grave ndax bu ko defee ci internet bu ne lii sa taat la nga ne ko du man wax jëm kaw jëm suuf ku naan yow la ku ko fekkee xam nga kenn fekkew ko loolu ça va comme sa jëkkër la boo ko defee du grave mais copain bàyyi mu sedd. góor ñi lëndëm nañ ay ram lañ ñu du ñëpp nak encore une fois ram yaangi doom doomaraame ñu baax a baax mais ma chérie copain rek ween yoy sax la lay wax ni arrêté ko bu yeboo mom na la yondé sax ba yondé la euh, bu na neesam bu ragal loolu mom bu yondé mom na yondé adna am solo ndax yoy lu bëgg a ju la xanaa awra bi bu la ko yondé bu dé awra bi da rafet nga dundal sey bët bo paré jall ci lenen way yow mom bu dara jóge ci yow di dem ci mom day tax sax mu dalay jappé jigen bu facile ndax góor ñi nee naa la bul bu leen fàtte yéen jigéen ñi que ne góor ñi seen xel yi baaxul ndax góor danga koy jox sa bopp fekk danga koo bëgg mu yaakaar ne jigéen bu cagga nga mu yaakaar ne ni nga ko joxee sa bopp noonu ngay demee di ko jox même bu la wóoloo ba takk la bu la takkee du la wóolu parce que danaa ni nga ko joxee sa bopp avant mariage noonu ngay demee di joxee sa bopp fekk yow sa mbëggee la la poussé nii nag ngay def nii di envoyé ay ween di envoyé ay taat lu ne nga envoyé ko bis bu la takkee déjà bu la takkee dina ma yéem waaye bis bu demee ba takk la loo def loo wax mu naan la régleel parce que avant bul fàtte ne euh, da nga doon envoyé en plus extérieur la ne imaginaire bu la takkee bàyyi la Sénégal ban wóolu la lay wóolu ndax danaa ni nga ko doon envoyé ci génn bi noonu noonu ngay envoyé yeneen i góor su defee seen sëy fu mu jëm ca miir ba dama saa yi ko waxee man dama koy kii dama koy bluffé wan ko ne jigéen bu am ful la ci sa bopp jigéen boo am fayda jigéen bu boo xam ne mun jëkkëram mun na ko takk bàyyi ko Sénégal wala bàyyi ko feneen am confiance ci moom te nii nga koy commencé nii nga koy commencé bis bu la laajatee ay naan la non envoyé woon nga ma sa ween nga ne ko. envoyé woon naa la sama ween waaye man neexuma parce que saama me dérange may envoyé lii moo tax dootuma ko envoyé parce que rus naa def lii rus naa di envoyé góor boo xam ne takkaguma di ko envoyé samay cër mu gis ne envoyé woon nga ko say ween waaye erreur la woon parce que neexu la woon te dootoo ko defati mu jàppee la ne ah def na ko waaye jigéen bu baax la kat mu respecté la ci loolu naw la fonk la bis bu demee sax ba xool xam ne ah kii du jigéen bu yomb mu takk la parce que da lay wóolu ça bis problème du am ndax bu am d'accord voilà ma chérie voilà ben, c'est très bien je t'en prie ma chérie. allô. allô. oui. ça va. ça va Tu hmm. as mais voix bi s'il te plaît nous ma ne dafa amoon benn histoire ma bëggoon a. waaw expliquer. Mhm. Mhm. pour nit gis naa jigéen ñi seetaan sa live na. Mhm. man âge bi vingt et un laa mais ba ma amee woon vingt kii bi tuuti sax dama nekkoon suñu kër gu man ak sama yaay ak sama papa ñoom. mais sama benn rakk papa dafa nekkoon. léegi dafa daan dafa daal. maanaam. mais daañu yeggu woon ci sax ci man xam naa nag bu doon loolu dinañ ko xam. Mhm. leeru woon nag sama bopp léegi may dem di dem di dem affaire bi bu nekkee sama xel damay wax gént la wala yooyu noonu. Mhm. comprendre nga. waaw léegi nii dama am jëkkër am naa sa benn doom. Mhm. mais affaire bi dafa dafa ñëwaat ci man daal. damay tëb benn jour. moom lan la doon def dala doon sàkk wala dala doon làmbat non dafa ma doon làmbatu ndax xam naa ne sàkk ma kon dinañ ko xam. léegi ba ma liwee nii ma tëdd benn jour mel dañ ma xoj jël lépp comme nii li ma amee jëkkër xam nga da comprendre lu bari. ah. léegi mu mel ni comme si daf ma si dañ ma xoj di ma tegalaat histoire léegi depuis loolu mu def ma traumatisme dama mel ni ku def daal xaw ma. waaw. léegi ma expliqué ko sama papa ndax du ma nelaw guddi bu ma tëddee dama koy jépp en bu ma am ci moom ak yooyu noonu. Mhm. léegi. su ma tëddee image yooyu noonu day ñëw ci man ak ni ma toll nii bu bi ñëwaat ci man léegi daf ma sonal. Mhm. léegi tey sa live ma ne xaar ma dugg expliquer la pour ñeneen ñu comprendre la ndax ñu mën a jël seen doom dinañ surveiller. Mhm. dafa boobu sept ans huit ans ba mhm. affaire bu ma sonalee expliquer naa ko sama papa daal. comprendre ma ne ko mais yeggul ci man parce que bu doon yegg na ci man mais di ngeen ko xam parce que xale laa woon sept ans huit ans. ndax après loolu ci lañ tukku ñëw. dëkk feneen. Mhm. xam nga. waaw mais affaire bi daal daf ma sonal ba pare kooku ko sama sama papa ne sa xel. Mhm. comprendre mais affaire bi daf ma sonal daal. ok mhm. ana ana ji la def loon. dafi continuer di fi ñëw bu fi ñëwee day mel ni sama xol bi dañ koy. loolu la li nga koy di gis moo tax muy am yu muy yee ci yow. très bien xool dama bëgg mel ni ku ko bëgg a rey xaw bu paree mu continuer di téye sama doom. muy téye sa doom. bu ñëwee day jël sama doom moom xaw ma daa fàtte loolu xaw ma daf may compter ma xaw ma. fàttewul de day fàtte fàtte lu fàtte fàtte daf fee xaj. pourtant daan na fi ñëw te avant may fàttaliku nii doon naa wax ak moom normal parce que yooyu noonu. Mm-hmm. mais kii bu ma ko gisee démb ñëw na fi. téye sama doom mais dafa mel ni sama xol bi dañ ko bëgg a sotti aw ma aaj lu mu ma chérie kooku kay bu ko bàyyeeg sa doom man loolu bu ci am bu leen ci am kees sa yéen jigéen ñi arrêté leen loolu. am kersa dina tax ba ba ñu ba ñu dugal la ci tooxi doon. kes bi dama wax damay wax damay wax sama papa ni ko na def lu tuub ba man bu ma ko gisati wala mu leeral ko fàttali ko loolu bu nekk da ko fàtte. Mm. mu daw kon ma koy dawee parce que man dama ko bañ. Mm. te bu ma ko gisee maanaam sama jëkkër sax dama koy jépp bu ma woowee moo am aaj wax moom yooyu noonu. ma ne ma chérie waaw li nga war a def mooy yow moom sa sa sa bos weesu na yow yow sa bos weesu na mooy mënoo koo rattrapé lim la def def na la ko ba pare waaye sa doom jooju ngay xoole noonu xam nga am na yenn pervers yoo xamante ne dañuy def dara yaay wala ñu def dara papa après dañuy bëgg di ko di ko defaat ci doom parce que da leen di fàttalil xam nga ay pervers lañ da di fàttalil liñ daan def ak yaay ji buñ ko defaatee ak doom ji dañuy dundaat neex-neex googu est-ce que yaa ngi may comprendre. comprendre naa mais kii góor la ba la ma ko def. góor la sa doom góor la. am na ñoo xamante ne de dañuy bul fàtte dañuy soqante góor ñi di soqante jigéen ñi am na ñoo xam ne seexlu wuñu xale seexlu mag. wuñu goor góor wuñu jigen dañuy laal ñi di laal ñele problème bi kay man kii un an boobu la am xale la ñu daal. Hmm. wax hmm. ma chérie. wax deug yalla actuellement ni yaangi ngi sa xel bi buma la waxee li nga teggi lal buma lalé sama bassin ba ñëpp di tok wara jang nga lal li ñëpp tass jang yi ma chérie dama né nga ibbi sa xel mi la wax dafoo jinné japp la. Buma la ki defal attention nga ne ma sama dom gor la gor la ba ci gor ni duñ len sakku jigen ni kessa dañuy sàkku gor ni ken du len baram ken du len lambat ken defu len gor jigen buma xone li la mu ne ma sama dom 1 an rek la am sa dom bu amé 1 an nak am na xamné moy de 1 an lañ am ñu ngi len di saxal awra gor ni ñu ngi len di jox sen bop awra yi ñu koy macc yow yo. ni dañu ragal yooyu fu salte yu gor ni di def yëpp yow nga ne do protéger sa dom bobu gannaaw li nga dundu ni ni ah waa ay ca na neex ma na neex ma chérie ah. <laughs> continuer noonu di ko di ko di di di kii noonu di di di ko bàyyeeg sa doom man di ma sàkku ba ma nekkee xale nga sàkku ma sama doom même bu amee un mois duma la ko bàyyee même buy doogay juddu boo ko foobee ma wàcc ci lalu ci lalu bi ma accouché jël sama doom toogaat. allo. amee ma ko nit kees sa wii Allô, ça va Ça va, ma chérie, et toi yaa partager une belle histoire. Khadija merci ma chérie Wow. Mhm. bon -hmm. ma cadeau yu bëri na tey mon cadeau yi franchement oh ay ñoom panthère waaw ay baleine lion ma chérie. Mhm. dañ mon j'avais ans. Waouh. Euh, fekk boobu amoon naa ko mais dañ ma may sama sama benn cousin. Mm-hmm. bon après ma nagu mariage bi et tout. Mm-hmm. mais sama jour jour bi ma waree tëdd. Mm-hmm. j'ai pas saigné. ma chérie waxal olof. saigné. Euh, comme traite génnul. waaw. te man musuma def. Tijaan 30 laa koy jëli jotagul waaw. musuma def sex mu bizarre nak? ma chérie yow yow mom, xam nga genre yi mooy dégol tubaab de waye li ngay wax yenen wax yépp olof ngay wax yow bo ñëw ba ci lalante xana nga bëgg signaler suñu live bi. lalante um, non non même pas. ah ma chérie waxal olof nak yow tamit mën nga ñëw di bo bo waxé olof ba mu neex la. nga bo ñu éggé ci lalante rek nga bëgg ko wax ci pourquoi waxal olof nak ah. légui buñ démé bañ wara teud ma ngi bi mu bi ñu bi ñu bi ñu bi ñu laalantee. waaw man sañe wu ma. waaw. mu bi la ah, fekk dañ dafa ma dafa dafa njëkk a commencé def mu metti woon. Mhm. ñu ne dama soccat ñu dem dindi soccat bi. tey nga dee de waaw. ñu dindi soccat bi ñu dikk ma ma tëdd sañe wu ma. naccoo ma chérie naccoo. waaw mhm. waaw naccu naccu ma. waaw naccu ma. waaw mu ne ma yow lan tax yooyu noonu noonu ma ne ko ma loolu comprendre ma. ma ya, ni ko léegi wol say parents wala ñu dem hôpital et tout. waaw mu daal ni ma waaw. waaw man dama doon taxawaalu et tout waaw depuis ma si ëmb nag. waaw. mais waxu ko kenn après bi ma damaa yaay ndax man yaay moo ma yar. ma ko man nàccu te man loolu daf ma jaaxal te yéen yéen ma yóbbu ñu dagg ñu ma bi. après bi waaw. waaw après daf ma traumatisme bi. mais boobu ba léegi sama jëkkër maa moom ci ay problème lañ dëkk et tout ba pare dafa mën doxaan taxawaalu yooyu noonu léegi léegi maa ngi ni am na vingt deux ans mhm. am naa doom aussi bu am quatre ans mhm. ba voyage am bale depuis boobu ba léegi nag defuñu rapport ça fait ça fait laalantew leen waaw maa moom depuis boobu ba léegi maa ngi moom laalantewuñu mhm. bu ma ko bu ma comme bu ma demee def samay affaire et day lank mm-hmm. te loolu dafa ma jaaxal mënuma ko wax samay parents et tout mm-hmm. mooy loolu mais voyage am bi euh, dañ doon dañoo dafa dañoo amoon tuuti discussion di tuuti lii xuloo mu mm-hmm. mbég ma ma fayu waaw léegi bi ma fayoo suñ parents yi ñëw yooyu noonu noonu ma wax ko fekk dafa am benn moment boo xamante ni moom parfois dañ ni man dama am rab ndax moom du doon góor waaw ko bu ñu tëddee parfois dañ ñu ni loolu soccet bi moo ko doon def suñ dëbbi mariage. ndax mm-hmm. <laughs> toog nañu mat un mois ñu ko. léegi cinq yi yëpp maa ngi toog di ko muñal léegi nii dellu na mais ñi ngi suñu jàmm mais bu xasee ñëw rek maa ngi moom suñu jàmm jeex na. Mm-hmm. Mm-hmm. duñu tëdd maa ngi moom duñu def duñu duñu sekk dara maa ngi moom. en plus am nañ doom et tout. am naa vingt vingt une ans mais problème bi mooy. mel naa ni ma war a mel dama jongo ma naa et moom daf ma ñaan naa ko baat ba may ma ko mais mm-hmm. bëggul maa bàyyi parce que nee na du ma bàyyi may dem si keneen et tout mm-hmm. yooyu noonu problème bi loolu la ma xawma xawma solution la war a def aussi parce que wax naa euh, ins bi damay dem si damay damay damay sax benn chi benn yooyu parce que problème bi dafa ma dafa ma jàpp dafa may damay dafa may dafa may def feebar tout da ngay suivre benn la mooy comme psychologue mooy ñi nga xamante ne ah psy ah psy nga wax ok waaw mhm. euh, fekk fekk daal sama sama lii dafa métti dafa doon métti ñun ma dem ñun ma danga amee début goitre début goitre waaw comme genre dans boule d'angoisse du du goitre mais boule d'angoisse la waaw Les ñu ne ma les léegi mu wax ma me ma da parce que yow vécu et tout ak yooyu noonu mais depuis ñi ngi mais man je ne suis pas à l'aise dans ce mariage quoi. Hmm. ma chérie comme solution sama bopp tëju et tout. tu veux divorcer ou tu veux rester dans ton mariage. je ne sais pas ah il faut que tu saches nag ma chérie bu dee da nga bëgg sa jëkkër ñu trouver solution bo xamné da lay dëj ci sey bi bu dé bëggoto sa jëkkër nag solution bi moy tu prends tu prends la poudre d'escampette tout simplement moy nga génn ci sey bi parce que amna yo xamantane xamante ne mënoo di di amé ay dépression di amé ay bopp yu métti di dem gisi jib tout le temps di amé ay ay début goitre rek ay des problèmes di di des trucs de du n'importe quoi ma chérie ci ay tout simplement ay bêtises sa jëkkër lan mooy problème bi mooy bam la takkee deret génnul ci yow te yow dong doo fi kenn koo xam ne defoon naa fi benn thème boo xamante ne mu ngi wax jigéen ñu bari woote woon fi naan ba man man mii dara génnul ñii naan ndox moo génn ñii naan deret génnul ñii naan lii génn ma chérie bàyyi ma duul sinon damay fàttali may wax ñii naan ndox moo génn ñii naan man ndox génnul deret génnul dara génnul mais musuma xam góor sa jëkkër moom mu ne moom foog foog foog rek foog foog par force yow comme yaa sàkk sa bopp yàlla sàkku la par force rek yow deret dina génn sinon doo ndaw moom moom ci genre góor yu sénégalais yu con yooyu moom ci ñooñ la bokk ñooñu nga xam ne xamuñu àdduna gëstuwuñ ma chérie kañ nga may bàyyi ma duul aussi kañ nga may bàyyi mooy si sa jëkkër genre sénégalais yooyu nga xam ne xamuñu àdduna jéemuñu gëstu luy jigéen xamuñu ñoom duuli gat xamuñu ko te ñoo fi dàq jugé góor ñooñu nga xam ne ñoo fi dàq jugé ñoom idée reçue yooyu mooy yëfu maam yooyu ñoom yooyu rek la ñuy topp te xamuñu ne jamono changé na yo ya maam ya maam la woon ñun suñu jamono suñu jamono la te jamono ji toll na foo xam ne science dafa avancé tellement ko fii ku ko xamul li dégg nga ne am na jigéen yoo xam ne amuñu ndaw ah, ah, waa amuñu ndaw merci ay jànk lañ boo dugalee awra di nga xam ne fii awra mu suufee dugg waaye dara amu fa deret doo ko gis ndox doo ko gis dara doo ko gis am na ñoo xam ne à la place de deret boobu ngay wax ndox mooy génn instant góor nga gis sax te jabaram génne genre kii xam nga deretu ndaw du du rouge day xaw a rose nii mu génn sax ñu naan la lii rougeul rougeul kon dangaa defaraat sa ndaw mooy genre góor yu con yooyu rek boo tasee ak genre góor yi yow mooy lool sa sëy moom dès le début sa sa sëy du neex sëy bi ni nga koy commencé noonu noonu la fu mu toll mu ngi merci Famista fu mu toll mu ngi lay mu ngi lay dëkkalee fu bon fu mu toll mu lay wax lu bon mu lay xas di la di la di la njaal def la kat fekk yàlla xam na ne dafa waxoo mais conculé jéemul gëstu xamul xamul ba pare dëgër gat yow genre góor yooyu nga tombé te genre góor yooyu sëy ak ñoom dafa métti doo am jàmm doo am salaam. doo am jàmm doo am salaam. franchement bëgg naa nga existé bu baax si ñooñu dafa am dafa existé man maay preuve je te jure barke alxuraan karim musuma fekk ak góor. mel ni vampire kay kii nee na bëgg deret mel ni vampire waaw ah. maa ngi koy dund bëgg naa chaque jour nga si insister parce que ça existe vraiment. ma chérie man moo yàq sama àdduna booba léegi maa ngi si sëy bi aw si lu neex et tout maa ngi ni am naa doom. sama papa bëgg na ma génn si sëy mais affaire na mbokk aussi wax ci bari ji. je suis perturbée. <sighs> damaa wax ba góor ñi ba ma chérie man damaa wax a wax ba sonn bi laay góor ñi damaa wax ba sonn barki rassuré laay damaa wax ba damaa dagg man damaa wax ba ba maa mar te aw ma lu ma naan merci Famista. un mu ni ma comme genre je man dama am comme genre dama am forme et tout. comme dëmm kay bu ma solee léegi bu ma solee lu ma lu ma loolu nan laa si man. mu ne yow da ngay sol lu la mettre en valeur. léegi waaw parce que man je suis naturellement dama am forme. ma wax dëgg yàlla dama ne la gis nga ko góor kooku noonu mayu la jàmm ba pare moo fi dàq doxaan en plus du gis nga ko moom dalay sikkal te yow yaa ngi nii yow demoo di ko téye nga sa bopp ba gis jëkkër ngay dugg ci moom mu ngi noonu daa wasaare boppam moom moom moom teewul ndawam daa wasaare boppam yow laa joo ko ndaw de te mu ngi nii di def lu gën a pire nekk di sëy ba pare di doxaan xale jigéen ñi te yow xam naa ne mu ngi tëdd ak xale jigéen waaye yow lay sikkal. cinq ans nii defuñu dara man moom. cinq cinq ans ma chérie attends <laughs> non non pardon cinq sa jëkkër musulaa soq yow barki Sëriñ Babacar Si astafurlah barki Alxuraani Karim bala ma ñi may xàmmee <laughs> te yéen ñaar yéen a ngi fanaan ci benn lal ci benn lal pourquoi parce que chaque jour problème bu tayee mu ni waaw lii tax amoo lii man ma ne ko je ne sais pas oh, xaw ma lan moo tax sa ñëw ma ma waa dangay fen bu mu ko waxul maa ngi ci affaire ndaw bi ba léegi mu ne yow boo ko waxul lan moo tax amoo deret dootul dootul dootul defati dara yéen ñaar dootul leen séqati dara. waaw. 21 ans la la ndaw si am sama rakk ji 21 ans la am 5 ans jëkkëram. ba mu ko soqee ba léegi nee na ko tout simplement tant que moom mi ngaangul ne ko dafa da da amul amul ndaw dafa dafa wasaare boppam ci àll bi dootul séqateeg moom leen ma chérie di dindil parleur bi nga def. merci gis sama profil man je suis très belle j'ai des formes sama jëkkër bu dee ay moromam ñoo ñëw <laughs> genre. day def na ah, man man maa dàq jabar maa def nii maa def naa mais dans le fond je suis pas heureuse. te pas heureusement ma chérie cinq ans sa jëkkër soq la ngeen di tëdd ci benn lal teg ci muy cela veut dire yow yaa dul am plaisir waaye man dinaa am neex-neex moom mu ngi dem di soqanteeg xale jigéen ñi waaye yow moom doolaal cela veut dire yow moom kenn du la soq xam nga yow yow sa jëkkër lu muy nekk dina def nii dafa nekk di la punir ci loo xam ne defoo waxoo yow defoo waxoo sa jëkkër daf la nekk di la punir nii moom mu ciy am bànneex di gis ngay souffrir ndax dar yow mom ken sokku la nga tok di muñ mom muy dem di teud ak xalé jigen ni ci mbedd bi yow nga tok di muñ muy ñoñatal sa xol bi sa yu xëyee muy mom muy gëna a heureux parce que mu ngi gis ne yaa souffrir muy dem di lalante ci mbedd bi yow ngay gëna ngay gëna am metit pourquoi do am goite pourquoi do feebar yow pourquoi do amé dépression ndax li ngay dund ni ma chéri pourquoi nga né do génn ci sey bi pourquoi nga do bay do maram ji pourquoi ma chérie li la fi man mi sax xaw ko bu doon awra bu neex sax ñu ne loom lay soq mo neex <laughs> ñu ne xaaral ñu justifier ko lool peut-être jëkkër di da mën peut-être di domé na fi way kawlal bi mën ko yow rien dara ba dépenser mu ngi mat rek au moins yaa ngi lekk yaa ngi waaw dafa joxe hmm. kon peut-être alalam mo la tek ci no, ma chérie. non non man du alal parce que man sama famille ñu ko ëppandoo ay ñun millionnaire yéen ay millionnaire ngeen. duñ noonu comme tu xaalis moo ko maaw bàyyi moom. Ah. am xaalis may mag dañu xaalis. seen famille am xaalis ma nga topp benn doomaraam ban ban ba kii ban njëriñ wala sa mbëggee la la teg ci moom je sais pas. dama ko bëggee surtout. <sighs> nee koo bëgg <laughs> nee na moom su koo bëgg <laughs> ma chérie wàccal sama live awum solution. Hmm. Non, je vais pleurer. Je peux pas. Allô Allô Non, non, ouais, tu m'as amené ma solution. Oui, ma chérie, ça va Allô Allô Alhamdulillah, Allô, Oui, ma chérie. ñoom ñu ni apprécier da ngay def parce que yaa ngi jàppale nit ñi. jërëjëf waay merci. jigéen ñeen ñëpp. jërëjëf mais mais may bés man xolo damay seetaan live bi sama xol di jeex ci xale yi jigéen ñuy yëg ñax seen xol. di xanaa toog di sëy xanaa. waa ñoom nan yow ndullee di ndulli di def lu leen neex ba pare yow nga ne déedéet doo tas. loolu de ma feebar fi ma ah. toog nii man. man de ki ñu ki ñu takk di ko dóor man ki ñu mënoote di ko dóor man moo ma feebar man ki ñu mënoote noonu mënoote la takk la ba nga ne kodd ne nag bu ñuy rey di la di la di fiile man boobu moo may rey man man booboo may rey euh, euh, yow bàyyil ma kii kii moom moo damm sama moral yëpp bàyyil ma kii billaay gis nga góor bu la takkee te xamul li mu yor nga bàyyi ko di dem gis ku la gën xam sa valeur daal di sa yeg yow lan la am na yoo xam ne lan la sax am na yoo xam ne torox tànge la. billaay topp góor mu lay toroxal nga ne dee doo ko bàyyi yéen yi c'est trop yéen yi sëy jaru ko man du ma sëyee am na noo xam ne moom du ma ko sëyee dafa am nu may nu may nangoog ma dul nangu. doy na waar la moo nekk di ko dem nga toog naan damaa am doom damaa am nii damaa kii. doy na waar lan la yàlla dafa jeex. doy na waar ma chérie ah waaye xale yi di nañ ubbi seen bët yi tey xool. am na yoo xam ne sëy jar ko. billaay wallaay kii wax na dëgg de ma chérie bi moom ku euh, appel bi coupé na sax kii wax na dëgg de instant yi du man dong de du moom dong am na ñu bëri ñu ngi seetaan live bi instant yi bëgguñu lu dul dugg ci biir dugg ci biir live bi ndulli leen ba ngeen normal <laughs> génnee leen ci li ngeen ne billaay wallaay instant yi du kii dong de moom dafa dafa dafa toog mënu koo muñ mu woote. mais bu ñu tëjee woon ligne bi rek bu ma yéegaloon nit ñi débat tey lañ leen di xas ba ngeen ràbb di lay instant yi nit ñi seen jigéen ñi ci boppam seen xol yi day sot man moom xam nga ne féministe laa man moom féministe bu mag laa man ku laal jigéen laal ma <laughs> waaye man ku ñàkk fayda mënuma koo supporter jigéen bu ñàkk fayda ah non je peux pas mais xam nga yenn sa yow mi nga xamné man mi li ci man du ci keneen amna jigen ño xamné dañ leena ya pour pour pour toy tooy gi yar gi ñu leen yar la allô allô oui. ma bestie ça va. ça va ma chérie et toi. ça va. tu es trop belle. merci c'est gentil ma chérie. Euh, bon. man dama doon waxtaan dama indi benn waxtaan boo xamante ne du waxtaan sax benn histoire boo xam ne si ñu bon la. Mm, dañu amoon benn bon boo xamante ne. Mm-hmm. Euh, daf ñu doon liggéeyal. waaw ah. mais dafa xaw a salte daal parce que début bi xale la nag mais début bi dafa salte woon parce que dafa amoon ay téye et tout ça ñu def tuuba dindi ko si ci bopp bi. waa bu mu kii léegi benn jour léegi benn jour ñun suñuy lekk. waaw ah. saa lekk rek si lekk bi day saf day saf comme genre saabu. wala muy doo comprendre sa yàpp bi lan lay saf. waa jën yi doo xam lu muy saf. waaw est-ce que laaj ma xale bu jigéen dëkk lan la doon def. lan la doon def. si waañ bi lay puub bu puubee si waañ ba pare congelé ko ci fii. ah pardon ma chérie pardon. luy loolu yow. oui lii la la. xam nga lañ ko xamee. waaw dañ doon añ. jour boobu dañoo toog di añ mu togg ceeb bu bu weex tàll nag toog di añ ñoo bi añee ba pare mu ne ah, ma jékki-jékki ma ne xaaral ma dem naa mu dugg ci waañ bi mooy xeeñ puub léegi bu may xeeñ puub ma woo sama benn sama benn niveau lu xeeñ mu ma mu ne ko puub mu ne woon mu génne commencé génne ubbi def nii rek gis nga ndum maamu ponk lu day ci ci kii waañ bi noonu. ci placard yi ci biir waañ yi. ndekete moom ci placard yi ndekete moom avant muy yàq añ boobu puub na ba pare ba teg ko foofu teg ko ci benn genre papier. léegi ma ne sama yaay yow nee nañ ma ma ne ko ka ma ne ko kay xool mu ñëw mu ne waaw ci biir waañ ku def lii mu ne ah man de xaw ma ne ko déet yow kase fii man ak yow ñoo meer bi kan moo puub. waaw nga ne ko man dayu ma sama yaay dayul ku day. besti ku day day gi ah nga ne ko ku day day gi ku day bi comprendre man daal du man du man du man mu commencé lox nde après ci la ñuy dem ci frigo bi daal di ubbi frigo bi ñu ubbee moom bu ubbee ba pare man dama xamul defa ragal dafa ragal toilette bi wala siège anglaise la mënul toog ñun comprendre ñu jusqu'à présent nangu ñoo expliqué ndekete day jël day ba pare bu ko dayee ba pare takk ci muus dugal ci congélateur bu demee ba congélateur mu génne ko sànni allahu akbar léegi mu ne mu ne léegi laaj ko pour lan muy def loolu mu ne la. bu léegi expliqué wu daal noonu la bàyyee noonu leen ko dàkkee mu dem jox ko xaalisam moo tax li ñuy toog nit ñi nañuy nañu xool seen bon yi baax li toog on sait jamais. mbaa yéen wa wa saabu googu mbaa day yi la leen doon tëmbalal foofu. day yi xam nga day. <laughs> am na lu ma ci doon xëy na waaye. waaye boobu ba léegi <laughs> mën naa sama sama bouteille laa sama néeg laa koy ne fu may benn bor. malgré am nañu yee ca biir ceeb bu saf ba waay ay waay kii mooy doomaraam. kii kay weesu na doomaraam. ceeb bu saf day waay. boo ko gisee xale bi rafet na mën na sañse xale bi karaw gi gudd ba ci suuf wër na yàlla. ndekete doomaraam la. ndekete imbécile la. mais dese naa yu ne yeneen trois cas naa ñëwaat beneen yoo ma kaar la yeneen. waaw ñëwaatal ndax yow moom sa cas bi moom doy na waar. bés yi dama lay posé question ma damay damay posté say say vidéo. mais dama jékki-jékki yow sama chaîne ma gis ñi bloqué ma te man duma ma commentaire. lan mooy sa chaîne. sama chaîne My Bestie 2 la. My Bestie 2 man du ma commentaire man du ma commentaire. du ma kii bind bañ naa bu ma posté ba pare dañ may bindal donc man xaw ma la moo tax ñu bloqué ma. dinaa la débloqué ndax yow sama fans nga dinaa la def. est ce que du est ce que lu baaxul ma bloqué la man man yooyu laay def de. Ah, ah. man sama publication baax demal nga xool. may besti deux ah dinaa la def envoyé ma message. envoyé ma message si ci lële sama sama numéro bi dégg nga naa la débloqué léegi incha allah. d'accord suba na neex waa ok. <laughs> chebu chebu lele chebu chebu naka chebu chebu dai ai wai ai wai tay kai roi na wa ay waay denc leen yeneen kaa yi ba suba ba suba heure tijaan jot na heure tijaan jot na man tam damay dem day ji balaa may jëli ji tijaan kii mooy doomara xam tey kaa yi dafa métti sama bopp tey moom kaa yi métti sama bopp perruque bi nag bu leen fàtte chupita chupita biituy xeer Chupita Beauty Hair moo génn ci sama perruque bi nii Chupita Beauty xeer mooy chaîne TikTok am sama perruque bi Chupita Beauty xeer moo génn fii numéro am 78 la 300 09 09 ku bëgg ci perruque yu baax yi gis nga longueur 24 la densité bi dafa fees dellu 350 pour cent la waaw tulle bi gis nga perruque bi dala koy defaral ba mu nice gis nga ko nii Sénégal la ko jëlee ba ba ba ba fii France. dama ko tooyal ndox sotti ko rek gis nga perruque bi naay saat nii kërlewaat ba ba ba ba ne egg ci lool nice ba bëgg a dee dala koy jaay ba pare defaral la ko ba mu nice gratuitement Choupita Beauty Hair moom mooy chaîne TikTok am décembre baa ngi ñëw perruque bi cent quarante mille lay jar muy euh, deux cent deux cent trente euros su ma juumul deux cent trente euros cent quarante mille Choupita Beauty Hair macha allah merci ma chérie perruque bi nice na trop. dem leen ngeen commander ko perruque baa ngi nii gis nga kolewu ma ko bu ma koy bu ma bu may yëkkati mu may topp bu may yëkkati mu may topp gis nga kolewu ma ko kolewu ma ko macha allah dangay teg rek mu dem dala koy daggal defaral la ko lépp dangay dagg tulle bi rek après nga daal di teg rek mu dem boo waree liggéeyi veille bi nga koy sotti ndox ba mu tooy gis nga sotti ko ndox ba mu tooy ak sa loxo kese jarul peñe ak sa loxo nga defar ko ba mu nice nii rek boo yeewoo suba teel affaire bi wow nga teg sa bopp dem liggéey ba ma liggéey jee ci suba ak léegi gis nga boucle lii tasul ci suba ba tey defaraatuma sottiwaatuma ci ndox defuma ci dara ba ma ko tegee liggéey gis nga ba léegi kon nag Choupitta Beauty Hair moo am perruque yu nice yi 24 pouces la mu ngi nii merci Choupitta 213 euros waaw 213 euros. 230 je sais pas 213 euros waaw 213 euros la mooy 140 000 ci Sénégal Choupita Beauty Hair mooy compte am euh, TikTok am numéro téléphone am 78 130 non 78 pardon 300 09 09 mooy numéro téléphone am woo leen ko ngeen commandé ci perruque yu baax yi ah baa ngi ñëw waaw kay te bii moom ñëpp lay jàpp amul demal ma ñëw. merci beaucoup ma chérie merci tout le monde merci ci cadeau yi cadeau yi bëri na trop merci ci confiance bi ngeen am ci man di ma nu ñu koy waxatee di ma wax seen problème à chaque fois tey live bi neex na trop yàlla na suba live bi gën a neex suba kaa yu gën a danse ah macha allah merci ci tapotage yi merci beaucoup merci à tout le monde ñu capture ah ayca ñu capture xaaral ñu capture ay ca capture mes bébés ñu capture perruque Choupitard mes bébés merci à tout le monde merci à mes modérateurs modératrices modératrices yi laay wax parce que nous laa fi gis euh, nonaam nonaam gëj naa la gis ma chérie Khady Dambal ma chérie yow tamit remercier naa la yéen ñëpp remercier naa leen mais bébés di leen jox dig dajee skinny nii chérie yow tamit macha allah usu nuyu naa la à demain incha allah mes besties adorées bisous bye ciao